seen Sport 221 dal leen ak jàmm ci xibaari tàggat yaram yi. dañu dore xibaar yi ak foot transfert kii di Noah Fadiga di doomu ancien international Khalilou Fadiga jamono kii di xibaar yaa ngi xam la ne transfert am officiel na jóge na fi nga xamante ne moo di club Bruges dem fi nga xamante ne moo di ci Hollande ci football club bi ñuy wax Heracles. gannaaw bi nga xamante ne ñu ngi ko abale woon ci benn football club bi ñuy wax Volendam nekk foofu la ci championnat bu Hollande niki ji mu def saison bu baax joué lu toll ci ñaar fukki jogante ak ñeent moom Noah Fadiga di latéral droite toll ci ñaar fukki at jamono këri xibaar yaa ngi xam ne ne transfert am officiel na jóge na fi nga xamante ne moo di Club Bruges nekk foofu ca Belgique dem fi nga xamante ne moo di Heracles nekk ci championnat bu Hollande Noah Fadiga di doomu ancien international Khalilou Fadiga toll ci vingt ans di joué ci poste latéral droite jamono transfert am foofu la ci Hollande ba tey dañu wéy ci transfert yi ak kii di Mame Birame Diouf nekk international sénégalais di évolué ci Angleterre ak football club bii di Stoke xibaar yaa ñu xamal ne jénn na foofule ci Stoke gannaaw bi nga xamante ni jeex na ni ki ñu wax ne kii di Mame Birame joué lu bari juróom-ñetti jongante képp la joué ci 45 yi nga xamante ni football bii di Stoke City joué nañu ko moom Mame Birame def lu toll ci juróom-benn at foofu la ci Stoke bi ci ëpp solo sax di jongante gi nga xamante doxoon na diggante Stoke ak Manchester City en te kii di Mame Birame dugaloon bii bi taxoon ñii di waa Stoke dóor ñii di Man City benn bal ci dara Mame Birame Diouf ñu formé ko fi nga xamante moo di ci Jaraaf jaar na ci football club bu mel ni Manchester United Blackburn Rovers ak fi nga xamante moo di Hanover balaa muy dem fi nga xamante moo di ci Stoke City gi nga xamante def na fa la toll ci dañuy wéy ci transfert yi ak ki nga xamante ne moo di international sénégalais bii di Sadio Mané nekk foofu bi ki nga xamante ne moo di Sadio Mané gannaaw bi nga xamante ne xamuñu avenir kii di Cristiano Ronaldo ndax day des foofu la ca Italie wala nañu nag ngir fay ko salaire bu toll ci 16 millions bu uté loolu ak limuy muy fayako foofu la ci Liverpool nga xamanteni suñ koy xam mu ngi toll ci fukki millions ci euro ñi di wa Juventus par nañu ngir fay Sadio Mané at mu nekk lu toll ci 16 millions d'euros buñ koy xam mu toll ci fukki milliards ci xaalisu cefa ki di Sadio Mané ki ñu xibaar yi mooy fële ca ak ki nga xamanteni moy international sénégalais bi di Demba Ba jamono ki di xibaar ya nga xam gagné na championnat bu Turki. ak football club bi ñuy wax Istanbul Basaksehir mu nekk première fois ci histoire club bi ñuy gagné li nga xamanteni moy championnat bu turki kon demba ba bindar na histoire am foofule gannaaw bi nga xamanteni gagné won na championnat bi niki 2017 ak football club bi di Besiktas ki di demba ba gagné na ñaarel bi yon championnat bu turki ak football club bi ñi wax istanbul basaksehir mu nek première fois ci histoire club bi comme ni leen ko waxee ki di demba ba wara yobbu football club bi di istanbul basaksehir ci champions league bi niki déwén kon gannaaw Stefan Badji mi nga xamanteni gagné na championnat bu Bulgarie Ousseynou Ba ak Pape Abou Cissé gagné championnat bu Grèce ak football club bi di Olympiakos Mamadou Loum Ndiaye ak Mohamed Mbaye gagné nañu championnat bu Portugal ak ñi nga xamante ne ñoo di FC Porto jamono yi kii di dem Ba ba gagné na championnat bu Turquie ak football club bii di Istanbul Basaksehir mbokk yi loolu moo doon tënkum xibaar yi seeni gis-gis man ngeen ko bàyyi ci commentaire yi te bu leen fàtte abonné nag ci seen bii di Sen Sport 221 the best sport channel.